الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده وعلى آله وأصحابه الطاهرين الطيبين ومن اهتدى بهديهم واسترشد برشدهم إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokk yi seetaan Mourchid TV seen mbokku daara Babacar Diop moo ñëw yéen ci seen émission al di leen ci dalal jàmm di ñaan yal na yàlla def jàmm ci xel yi ak ci xol yi ak ci jëmm yi ak ci nekkin yi ñu ngi ñëwaat yeen ci seen tomb bu mag bu ñuy tuddee inaaya wala riaayatul islaam bil fardi wal jamaa ñu indi tey benn tomb bu ñuy wax assiyaasatu muhimmatul ambiya politique yonent yi ñoo ci jiitu euh, yonent bi sallallahu alayhi wa wax na ni kaadat banu israil tasuusuhum alambiya kullama halaka nabi xalafahu nabi yenent bi nee politik politique jëkkul ci sama diine maanaam sama sama mission te ci la ñu tudde diine ji al islaam muy dernier mission mu ni parce que banu Israil yenent yi yàlla daan yónni ci ñoom yenent bu ñëw rek mooy tëral politique ba ñooñe di dunde ci seen wàllu diine ak ci seen wàllu jëflante àddina te nee yenent bu fi jóge yenent ba koy uutuwaat bu ñëwee loola lay continuer waat xëy na ak ay réforme ya taxoon yàlla yónni ko itam maanaam li ñu bëgg a wax foofu mooy euh, mbiru dund politik moo koy yéwénal su ñu waxee politique nag waxuñu lu mel ne yi ñuy gis ci suñu réew yi ñun ak ay façon idée yoo xam ni la muy lor diine ñi far yàlla moo ëpp doole la mu leen di jariñ waxuñu genre ay nit ñoo xam ni diine yaruleen ba tojaatal maanaa tojaatalu leen yar ba toqi diine defu ko beneen yar moo nekk ci ñoom meneenum njàng mu bokkul ak njàngum diine moo not ci seen xel yi ak ci seen xol yi waxuma genre politiciens yu mel noonu waaye politik li tax mooy yéwénal dund mooy dafa ajuwul moom ci rek nga ni naa tëral loo xam ni ku bokkul man du ca jariñu walla ku bokk man yaa cay gañe ña bokkul ak man walla naa jaarale sama tëralin yoon boo xam ni duma fi jóge feeg maa ngi dund li fi indiwoon duma du ma fi génne waxuñu boobu façon politique waxuñu itam politique boo xam ni da ngay yaakaar ni làmmiñ wu saf ak yàkkante lu mel na xeme mooy tax nga génn ca mbaa nga am baatu nit ñi déedéet waxuma politik boo xam ni itam sa soxlay bopp lay tax a jóg te mooy bala laa nit ñee gis nga soxlaati sak pal waaye boo xasee toog toppatoo wuloo ruq ba gën a sori ña gën a ëpp jafeñ-jafeñ la ca xew bu la ko nit ñëwul wax ko doo ko xam te nit ka bu fekkee dana ñëw di la ko wax itam mën naa nekk koo xam ni du la wax la ca xew waxuñu koo xam ni du xamal boppam dañ koy xamal te ki wara jiite ay nit rawatina lu tel na am réew waruloo loo xam rek dañ la ko xamal yow yaa war a am sa yittey bopp ba xamal sa bopp lu la kenn xamalul loolu moo tax sayiduna Umar radiallahu anhu tàmbalee sax ca yonent ba waaye moo yar Umar bu ñu waxee li ci Umar rek wax nañ lenn ca la mu jële ci yonent bi moom amul benn njaboot foo masaan nekk ci état bi mu yilif te xamalul boppam la nga fa nekke te it daawul yëpp rek toog naan dem leen seetal ma mais da daan jóg sol dàllam yor tànku boppam fu mu war taxaw mu taxaw fa fu mu war a mu rond fa fu mu war a yëglu mu yëglu fa waaw ku mu yebal fenn itam teg la fa ci kanam askan wi ci kanam njaboot bi su déggee ni wane nga fa benn baat buy wane ni da leen a féete kaw mbaa da leen a gën waa da mbala da ngaa bokk ci ñu tedd moo tax ñu teg la fa dina la woo woo ña nga nekkal ba ñu ñëw ci seen kanam mu won leen ni kii du tus moog ñëpp a su leen bëgg a jàppee jaam bëgg a jàppe boppam sang bu leen ko nangu te dinaa ko won ni ko du sangu kenn d'ailleurs maanaam sax ñi nga ñi nga yilif sax ñooy sa sang parce que ci seen soxla nga war a dox waaw loolu nag yàlla ni politique boobu moo taxoon bi ma leen bindee ci aadama ak xawaa ma bañ leen a bàyyi ngeen nekk benn xeet waaye bañ leen a bàyyi itam ngeen tàncaloo ci benn béréb ndax suuf si yaatu na ma séddale leen fu ne melal leen euh, couleur bu ne jox leen lakk wu ne waaye nag ci benn charte te charte booba bu ngeen ko defee itam la ca war a topp defu leen ko te mooy ngeen fexe ba xamante fi mu nekk réew yëpp xamante nañu waaye la topp ca xamante ba mooy solo ba moo taxoon yàlla di wax li taarafu te mooy bu ngeen xamante mën a weccente ay njariñ parce que defuma lépp ci fenn mbaa ci ñenn dama koo séddale li am fii am nañu ko soxla te nekkuñ fi la am fële am nañu ko soxla te nekkuñu fa xam-xam bi wara a gox bi am nañu ko am te dëkkuñu fi ila axiri dalik yar bi wara am ci njaboot yi am nañu ko man te fa ñu nekk du fii loolu nga koy toppe di ko toppee mooy taa ak taawun mooy jàppalante dimbalante waaye nag ci sartub ngeen bañ a tooñante bañ boddikonte itam ci kaw aw xeet ndax seen couleur yii ma leen jox mu uute ak seen lakk yi ma leen jox mu uute bot di konte taxul dama ko def pour ngeen xam ni man rek ma man lu ne su ma neexoon ngeen nekk benn lakk yor benn melokaan waaye ab der gënante du ca ne aw lakk gënante du ca nekk fan la gënante di nekk at taqwa hahuna ki nga xam ni bëggul a tooñ boroomam bu buggula tooñ moroomam loola du nekk ci waxam mbaa ci melokaanam ca xol ba lay nekk moo tax mu ni inna akramakum inda allahi atqaakum bu boobaa nag yàlla day daldi euh, génnee ci politique gëm-gëm kese boo gëmee politique bi mën na la jariñ boo gëmul politique bi mën na la jariñ loolu moo tax politique mooy doxal diine di doxal àddina loolu moo tax suñ borom bi subhanahu wa bi mu ñëwee nag mu wone ni politik bi ma leen jox yéen nit bu leen ko tàncale ci benn façon rek benn idéologie benn gis-gisu benn xalaatkat ndax gis-gisu benn xalaatkat bi jariñ mën a jariñ umma bi xeet wi yépp nga xam ni ñépp mën nañoo bàyyi seen xalaat tënku ci bosam kooku ab yonent bu yàlla yónni rekk lay mën a doon walla boo koo xam ni donn na yonent bu yàlla yónni te la muy def tegu ko ci parparloo tegu ko ci fii fii la fii laa war a defar mbaa faa laa war a defar la nekk ca moom bu sañoon jox ko ñëpp na mu mel ba ñëpp naw ko ñëpp bëgg a mel ni moom bu sañoon jël ko jox ko ñépp lu mu yor bu sañoon ñëpp yor ko kooku kooku moom xalaatam ñëpp mën nañ cee tënku parce que xalaat xalaatinu yàlla la yore waxin la yàlla moo bind jaam ñépp nangu ñiy weddi ko nangu ñi gëm ko nangu ñi nangam nangu ñi mel nii mu bàyyi lépp rekk teewul kenn ku ne fa nga nekk la nga war a dunde mu di la ko jàmm mu di la ko yombalal boo defee sa yitte def sa xam-xam bi mu la jox def sa xel mu am lum la ca woon kon nag su ko defee ñu xam ni politique jumtuwaayu yàlla la buy takkale xeet yi di leen déggale fu ñu mën a nekk te du ñu xool kii lii la gëm walla kii nii la mel wala kii fii la féete su ko defee nag moo tax campagne électorale bum mu mën a doon moo xam campagne électorale la sax wala campagne bu dellu ci activité parti bu nekk bëgg a wane ni sama parti nii la mel waaye bum ci mën a doon rek yaa ngi ko war a fondé ci fondement wu dëggu ak wóor jikko yi ñu wax ci yenent mooy a sidq wal amaana politicien bu nekk lool nga war a yor mooy bul masa fen saw xeet xam nga doy na campagne biñ la fi tegee ñu gis ni lañ la fi tege woon def nga ci sa kemt laayal kàttan te naxoo leen kenn ku nekk gis na boppam ci li nga def te waroo leen sàccoo seen alal fenoo leen loolu doy na campagne beneen yoon bu jotatee jarul ngay sonn jaru ko bu dee amaana bi itam mooy li nga yore moomoo ko sànq wa nga gisul sax ca la bokk sànq wa la Seydina Omar waxoon ni nekk ca Madina naan mbaam mbaam may dox ca Irak bu fakkastaloo daanu bu ëllëgee yàlla dina ma laaj lan moo tax defaroo yoon wa ba tax mbaam mi fakkastalu xoolal Irak ak Madina maanaam loolu mooy responsabilité politicien boo xam ne dañ laa dénk mbirum aw askan moo xam nag dénk bu yaatu la muy am réew moo xam ab gox la waaw su ko defee nag nga war a wax nit ñi wax boo xam ne buy dañit du dañee ci yow wax leen fi nga jëm ak li tax nga jëm fa ak yan jumtuwaay nga am pour jëm fa ak yan nga soxla ku la ci jàppale ba tax ngay laaj baatu askan wi moo tax nag boobaa nag da dellu ca yàlla wax yonent innama alayka al balaag wa alayna al xisaab yow daal jottalil sa dëgg ñi ko war a dégg nañ ko dégg amaa nag la ca des nag xisaab ba ca des nan la ko nit ñiy recevoir ak ban résultat lay am yàlla nee na ci sama loxo la nekk wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.